ki nga xamante ne jamono jëne yéenay topp seen site internet Touba Argentine TV kon uh, kon leen ko digle woon nag suba gi uh, ginnaaw bi nga xamee def na ndékki baax def ay laax def lépp xeetu berne mu mel ni instant yi ngoon gi jot na ñu war a def li nga xam ne mooy añ ngeen gis soxna yi ni ngeen xam ne noonu lañ taarale bis bi ci wàllum xeetu berne euh, lépp lay tegtale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku mënoon a joxe ñam la kon nag képp koo xam da ngay màggal bisam euh, day yella nga defar ay xeetu berne yoo xamante ni tubaarikàlla macha allah euh, kon rek ci gàttal dañuy ñëw fekk fii sunu jigéen soxna Ndeye Assou moom mi nga xam ne jamono ji nekk mooy nekk ci waañ wi waaye nag du ci wéet benn yoon ndax ay doomu ndeyam jamono ji ñooy ànd ak moom ci liggéey bi waaye nag soxna Ndeye Assou dañ tey jii na ngeen def bopp programme yi li nga xam ne lépp macha allah ni mu jaare yoon nii tubaarkàlla euh, lépp daal moom maam ala doomi na macha allah. Hmm, asalaamaaleykum hmm, euh, mbokk taalibe yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ci seen sant ñoo ngi fii La Plata euh, di màggal guddi Seydina Mohamed nag ñu ànd ceeg suñu góor yàlla yu baax yi nga xamante ne si mooy taalibe cheikh yi nekk fii si La Plata wax dëgg yàlla ñu ñu neex a àndal moo tax wax dëgg yàlla ñoo kontaan ci bis bi. di ñaan yàlla lépp lu ñu fi liggéey rek yàlla na ko yonent bi nangu te lépp lu ñu fi ñaan it yàlla na ko yonent bi nangu ci darajay Seydina Muhammad. macha allah kon soxna Ndeye Astou ñu gis ni maanaam xeetu berne yi neewaa na luñ koy gis fii ci réew mi ñu bëggoon a xam yan xeetu préparation ngeen def maanaam ba mën a taxaw lu mel nii. waaw préparation yi nag xam nga wax dëgg yàlla suñu góor yi ñi nga xamante ne si ñooy taalibe cheikh yi dañ ñoo jàppale torop parce que itamit li gën a neex mooy bàyyi la rek nga dem ak sa xel tey tamit noonu lañ ñu bàyyee liñ ñi leen moom lañu bëgg moom la def xam nga ñun nag ay bi sëñ Fàllu lañu ñu ñëw rek jàppale leen ci bis bi jàppale leen lool nag euh, bi ñu xëyee defar nañu laax moom la ñu xëyee woon maanaam def ko ay ndékki léegi si nekki nii def nañu euh, ceebu cakaay léegi ñu koy wax euh, riz par la waa léegi tey moom la ñu togg nii comme añ xam nga des na ginaar yi mu ngi si biir Parisha bi moo nga ne defar nañu beñe ak café salade de fruits yëpp moo ngi fi daal vraiment dara manqué wul tey moom wax dëgg yàlla taalibe seex yi ñoo ngi leen di wax ni leen sant nañu gërëm nañu bu baax a baax a baax a baax ñuy ñaanti yàlla rek yàlla na leen yàlla fayal boppam ak yonent bi mi nga xamante ni si moo tax ngeen di sonn ci bis bi macha allah kon kook ngeen gis mooy soxna bi nga xam ne moo jiite waañ muy soxna Ndeye Astou euh, kon lim résumé muy la am solo muy que ni ñëpp benn lañ Euh, kaaba gi benn la islam gi benn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ñu maase di bëgg ñëpp benn la waaye nag euh, duñ dem mukk te laaj ñu nga xamante ne ñooy taalibe Cheikh ñi nga xam ne euh, ñoo jiite organisation bi mun leen mbokki ah, dafa mel suñu ginnaaw sax Ameth Diop moo ngi ah, yow dañ lay laajte mbir mi maanaam sëñ Ameth nu mu taxawee ginnaaw dañ nuyoo njëkk aousubillahi mina sheytaan irajim suma salaatu wasalaamu ala rasulillahi xaatama nabiina wa imaamil mursalin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ku nekk sa tur ak sa kàddu di leen jaajëfal yéen ñëpp den xamal ni ñun ñoo nekk fii ci waañ wi ak soxna yu baax yi comme ni ko Ndeye su waxee rek soxna yi sëñ Fallou yi soxna yi yëpp rek wax dëgg yàlla ñi ngi fii jàppale nu ci togg yeeg yëpp rek wax dëgg yàlla ñi ngi ci kawam ci suba ba dem ba léegi ñi ngi fii fanaan ñun xëy nekk feek ñun ci ngir lu jëmal bis bi rek li nga xam ne tey jii moom mooy bisu ki nga xam ne mooy li tax lépp am bis bi nga xam ne tey moo tax lépp lu ñuy luy dox fii rek ci dënd bi rek bis bi Seydina Mohamed moo tax ñu bind la ci leeram waaw ndax bu amul woon la maam Maodo wax ca Taysir ba ni talxatuhu fenkam nga mu fenk moo tax ñu bind lépp moom moom lay firndeel fii ba léegi rek waaw moo tax tey jii nii ñu nekk fii di ko gàmmu fii ak ñëpp nag ak mboolem képp kuy la palaata rek ñu ngi fii ku ngeen gis ak ku ngeen gisul ñëpp ci des ñu ngi ci saal bi wax dëgg yàlla jàpp ci gàmm gi bëgg nu mu ala daw mi ñun ñëpp di ko gàmm ni ñu koy gàmmee Sénégal ak fépp ci monde bi daal fii lañ nekk ci La Plata di ko gàmmook ñëpp rek waaw macha mu mel ni tamit lii xeetu berna yi mel ni tamit xeetu naan yi ba tey yëpp a ngi ci ci frigo yi mel na ni macha allah tamit dara jeexul tamit dëgg la xeeti naan yi yëpp mi ngi ci biir boo bëggee te nga doxantu fii ñu walla ndax mën nañu xeeti naan yi ñu ngi ci biir gars yi jënd na lépp lépp daal wax dëgg yàlla mat na dara manqué wul ñu ànd ko Baye Fall yi sëñ Fall yi rek comme ni ma ko waxee woon léegi rek waaw wax nga dëgg boo gisee gars yi ci Baye gars yi ci waañ yëpp nag taalibé yi sëñ Fallou lan rek ñoom ñoo jàpp ci bis bi lépp bëgg mel ni tarixa yi yi mel ni lépp benn la rek da koy tegtalee ndax bis boo xoolee àdduna ñëpp a koy célébré tijaan xaadir murit laayan mel na fi mënoo fee xàmmee kenn kon ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp dañoo bokk luñ mën ta séddoo walaay loolu wér na loolu wér na ci loolu nag la doxal ñun ñëpp nag ku nekk jàpp di ci bay sawar def euh, mbir mi ku ne def ko sa mbir rek moo tax tey bis bi rafet nii ñëpp mën a xam ne tey jii lépp sotti daal baax daal wax dëgg yàlla waaw ci la nekk nii kon sëriñ Ahmed Diop ni mu ko waxee moom tamit jëwriñ la ci li nga xam ne mooy waañ bi comme ni ko maam alaaji Malick doon digle euh, ku ne xam ne ne gàmm na ñu ngi fii di góorgóorlu kon yéen a gis bët lay laaj kon gis ngeen xeetu berna yi nu mu fi taxawee euh, kon dañ leen di jox dig daje gis euh, kiis rek daal leen di yenk leneen li nga xam ne dina fi ruusaat incha ci kanam